من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخير خديمه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي جلدي مبكي mbokki ñu ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam boobu di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellusiwaat nañ ak yéen ci jataay yi nga xam ne waa daayira muxaddamatul xidma ñoo koy amal diirub koor gi ci waxtu yi ñuy jël ay tomb yu fasantikoo yu am solo yoo xam ne nit ñi danañ ci mën a euh, tàggantiku ci loo xam ne dafa jëm ci seen dund gi ñu ne ak dund ga la ñu jëm muy tomb yu am solo euh, ñuy fàttalee ne tomb yooyu euh, ñi ngi koy jaarale ci télé bi nga xam ne mooy télé jumaa ji di GMT TV ñu man koo jàpp ci kanaal bi nga xamante ne bi mooy 207 euh, ci euh, télé yi nga xam ne moom la ñuy seetaan ci kër yi tey nag noonu ma ko waxee léegi mawdu bi ñu jël mooy ahamiyatul ilmi inda Cheikh al Xadim muy solo si nga xam ne ak dayo bi nga xam ne xam-xam am na ko ci sëriñ bi radiyallahu taala anhu ku ne xam na ne sëriñ bi dundam gépp ak mbooleem yëngutoom yépp lépp xam-xam la woon kon looloo tax ñu jël tomb boobu ngir fas ci yéene nafar ay bind yoo xam ne ñi koy déglu danañ bàyyi xel dayo bi nga xam ne moom la xam-xam amoon ci sëriñ bi ak ni sëriñ bi bàyyee woon xel xam-xam ki ñu war a defal waxtaan wi nag muy sëriñ aboo mbàkke di koo xam ne miin nañ ko ci jataay bi miin nañ ko itam ci jàng ak jàngle ak tasaare li nga xam ne mooy njàngaleem sëriñ bi moo xam ci biir dëkk bi la wala ci bitti dëkk bi kon tomb boobu ni ma ko waxe léegi moom la ñu war a waxtaane muy tomb boo xam ne itam tomb bu am solo la kon ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel ci waxtaan wi kon war nañ ko may nopp bu baax a baax ngir euh, mu mën a euh, waxtaan ci tomb boobu kon xam naa duñu guddal lool dañ koy jox kàddu gi rek mu dugg ci biir tomb bi incha allah kon sëriñ bi bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق شهد بها الذي لا إله إلا هو واستشهد على ذلك ملائكته أولي العلم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخديمه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi ساكو sàkku ci mboolem ak ñi ni déglu ci jumtukaay yi ak ñi nar a déglu ci jataay bi ñëpp ak waxtu wuñ ko mën a dégloo noo ngi sàkku ci ñëpp kenn ku ne jàng saaru yoon yoon ñu defal ko hadiya cheikhul ci barab bi rahim qul allahu ahadun allahu samadu lam yalid walam walam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 di ko ko ndokkeel ci weeram wii weeram wii di ramadaan sëñ Tuubaa dafa jëflanteek boroomam ba mel na boroomam da ko doyloo ci lépp lislaam ba yi ci ëpp solo yépp mu mel na da ko jël teg ci loxoom dénk ko ko mu waxool ko boppam loolu waxoon na ko ci alquran na woon na boroomam jox na ko ko nawoon na bu dee ak moomeel ci may ci may lay wére moom naa ko ndax may nañ ma ko bu dee ci ñu sarax la ko ci lay wére moom naa ko ndax sarax nañ ma ko bu dee ci ci njëg ci njëg lay wére moom naa ndax jaay nañ ma ko malaktuhu hadiyatan wa sadaqa wa thamanan wali yu diimu nafaqa lu mel noonu la wax ci weeru koor wax nag boroom ne ko may nga ma weeru koor ci sag mbaax yaa man wahabta liya xayra fayadaan wa jutta lii fadlan bi chahri ramadan soog ne salli salaatan lam ca teg ca nuuru dare yi kon noo ngi delloo di ko siyaare ci ca bayitu sëriñ fàlluwa radiyallahu taala di ko wax fa kun fi nicmatin abadan muqiima muaafan murtadan cheikh alxadimi noo ngi nuyu bokk yi di sant ñépp di ndokkeel ñépp di jiital ci lépp ki fi nekkal sëriñ bu mag bi di cheikh muntaqa di ñaan sunu borom dolli ko jàmm te dolli koy ndam di sant bu baax sunu bokk yu baax yi daayira muqaddamatul xidma ci jataayu am solo yi di jataay xam-xam koy amal fii ci barab bu bi jataay xam am na xadis buñ jëlee ci ibnu abbas yonent bi waxoon ne fu ngeen rombe dëri aljanna xéewlu leen leen ci ñu ne ko luy dëri aljanna mu ne jataayu jataayu xam-xam إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة قال مجالس العلم كم جتا يونغنيل يو ام سولو بي من وراء واخاني ان شاء الله نيكو سيغن حسن واخاي ني غوي سانت تي اوبي اهميه العلم عند الشيخ الخديم solo si nga xam ne xam-xam am na ko lool ci Serigne Touba yittewoo gi mu yittewoo woon xam-xam lool Serigne Touba diine moo doon yitteem diine ndax moom dafa jub rekk jëm ci boroomam sëñ Muntaqa di wax biñ ko gisee ba niñ ko noppee gisee ci boroomam la nekk te diine moo takke jaam bi ak boroomam moo tax lépp lu yitteel diine sëñ Tuubaa day yittewoo loola te diine nag dafa yittewoo xam-xam sëñ Tuubaa yittewoo gi mu yittewoo diine noon yi sax dañ koo seere fii ne tuuma yiñ ko tuumaal li muy bari bari amul benn tuuma bu boo xam ne tuumaal lañ ko ko lu koy génn ci diine ñom ñëpp lañu séré ba ci noon yi mooy diine jaaraloon nako bakaram bakkaram tuuma yëpp moom woyefal diine musu ci bok ta arab nak day wax ne al haqq ma shahidat bihim aadaau non mom lu mu séré rek deug la amna ci tuba bi ko xamne bam defé rapport di wax seigne tuba programme bisam dafa ne bu xëyee suba ba tisbaar ba tisbaar day jàng alquran tisbaar ba takkusaan day bind mooy tawaalif yi mu ne tàkkusaan ba tisbaar ba tàkkusaan day bind tàkkusaan ba timis day beru di xalaat boromam timis ba bët set nag day julli loolu am noonu moo ko seere ci sëriñ bi gis nga commandant ba mu nekkoon njaareem la ñu àndi woon ko jaaree 1913 mu am fa ñaari at di nattu sëriñ bi ba xam li mu nekk lan la nga xam ne buy ñëw ci kër gi du yëglu waxtu wane day ñëw te lu dox digganteem ak sëñ bi bu dee sàng dana ko dajji bu dee sàkket dana ko xotti ngir bëgg a bett sëriñ bi ba xam li mu nekk lu mu doon sëñ Bachiru bind na wax ne ba mu ba mu fa amee ñaari at la def rapport moo it wax na ci wax ca rapport ba ne nattu na sëriñ bi moom qaala waaye fa lam yajid minhu illa rajulan kulluhu diyanatun islamiya moom daal gisul ci moom lu dul jëmm la joo xam ne léppam diine la moom sëñ Tuubaa loolu noonu seera na ko diine nag moo tax nag sëñ Tuubaa yitte woo xam-xam ndax diine dafa yitte woo xam-xam lool bu ñu wax diine nag mooy lislaam am na diine yu jiitu lislaam waaye dafa mel ne sunu boroom dafa jël diine yëpp tënk leen ci biir lislaam dafa mel na loolu mooy xikma xikma bi nekkoon ci guddi ga rañaan ga yonent bi dafa dajeek yonent yëpp ca Palestine baytul maqdis jiite leen genn julli génn julli ñu bokk julli day mel ne xikma bi ci nekk mooy keroog la diine yëpp dugg ci biir lislaam moom la sëñ bi nettali ca muqaddamaat muy daje gam fa daje woon ak yonant yi jiite leen génn julli la anta imaamu rusli qad jaa annahum talaaqawka fi l israai wal kullu qad salla lislaam xam-xam da cee am solo lool loolu moom la nga cay la koy jëkk firndeel mooy aaya ji jëkk wàcc ci alquran aaya ji jëkk wàcc ci ci xam-xam la jëm mooy iqra amul sunu borom jëkkuta wàcc ci alquran lan lu dul jàngal walla yeneen yaa ngi fi waaye day mel ne nit ki bu xasee am xam-xam rek moo koy ubbil buntu yeneen yim war a def yépp mu xam ko yim war a bàyyi mu xam ko yittewoo gi diine yittewoo xam-xam tax na alquran ji nga xam ne mooy ndey diine moroom xam-xam yi seetlu nañu ne baatub xam-xam rek ak yanca xare mustaqaat yi ñëw na ci alquran lu mat juróom-ñaar téeméeri yoon ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent lu toll noonu baatub xam-xam ñëw na ko ci alquran ñu ne ñu ne kon daal day mel ne bu ñu séddale woon téeméeri saar ya fukk ak ñeent bu ñu leen séddale woon day mel na saar wone sunu boroom tudd na ca xam-xam juróom-ñaari yoon kon ku ne ku ne xam na ne xam-xam lu am solo la ci diine xam-xam lu munta ñàkk la ci doomu aadama lu munta ñàkk la ndax moo yéwénal dunduk àddunaam di yéwénal dunduk àllaaxiraam sëñ Muntaxa dana koy wax dafa dafa wax ne lekk ak naan ni nga xam ne munta ñàkk day mel na xam-xam xam-xam munta ñàkk mooy yéwénal dundu àllaaxiraam ndax ci lay xamee li sunu borom digle xam lim tere ba man koo jëfi mën a bàyyi lee moo tax sunu borom ne borom xam-xam yi rek ñoo ko ragal ndax ñoo xam fañ war a jaar innama yaxsha allaha min ibadihi l ulama sunu boroom woote boo demee ci alquran dafa woote ci xam-xam dafa waxoon jullit ñi ne leen dëkk bu ne bu ñépp munta jàngi seen diine itam na am ñu dem jàngi seen diine ba xam ko bu ñu delsee jàngal ko ñi ci des wa maa kaana almuminuuna li yanfiru kaafatan fa lawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi ddiini ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون كن لولي تم ديواني خم خم نم أمي صلو أمنا آية القرآن يبري يخم نبروم خم خم يدنو جسني نان كوي نيوم تي خم خم لجم تي خم خم لجم لمن اللي سنو بروم وخني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم topulen yalla top yonent bi ta top ñi amé seeni mbir ñu ne ñooñu nag ñooy boroom xam-xam yi boroom xam yi ba tey fii sunu boroom di waxe ñaan gu siiw googu rabbana atina fi dunya xasana wa fi l xasana ñu ne xasana ci dunya mooy al ilm wal ibada xam-xam ak jaamu yàlla kon loolu it di wane xam-xam ni mu amee solo sunu boroom wax na ci alquran di wana ne boroom xam-xam yeeg ñi amul xam-xam mënuñoo yam mënuñoo yam loolu di wane xam-xam nu mu amee solo nu mu kawee daf ci ab laaj boo xam ne laaju inkaara inkaar la qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun day wane ne rek ñaar ñooñu mënuñoo yam moo tax imaamu Shafii boroom xam-xam bu mag boobu rahimahullah wa radiya an wax na ne nit ki lu mu màgg-màgg ci bëti nit ñi bu fekke amul xam-xam bis dana ñëw rek mu tuti mu tuti ndax danañ soxla xam-xam ta fekke amul xam-xam bu mu genn mon waye nit lu mu tuti tuti ci beuti nit ñi bis man na ñëw rek mu magge lol xam-xam moko yekati motax moné wa inna kabira al qawmi la ilma indahu saghirun ida altafat alayhi jaxaafilu wa inna saxira al qawmi in kana aliman كبير إذا ردت إليه المحافل xam-xam sunu borom wana na ne sunu borom bam bindee sunu maam aadam alayhi salaam fekkoon na bu mu bind yeneeni bindeef di malaayika yi ñoo xam ne jaamu seen borom rek mooy seen yitte amuñu benn liggéey seenu lekk ak seenu naan sax mooy jaamu yàlla gis nga sëñ bi na mu koy na muy misaale seenug lekk ak seenug naan ca tasawudu sixaar tasbihu rabbihim huwa sharabu taqdisuhu taamu la tartabu kon jaamu yàlla ci dañuy lekk ca dañuy naan waaye ànd ak loolu lépp mbindi aadam dafa leen digal ne leen sujjóodal leen ko sujjóodal leen ko waaye xam la na ci alquran day mel ne xam-xam bi mu def ci moom xam-xam li ko xamal te ñoom xama xamalu leen ko loolu la leen féetee kaw ba ñu war koo sujjootal sujjootub wormaal loolu bu dela ci alquran dang ko ca gis bam mu xamalee aadama lam ko xamal laaj malaaka yi xamuñ ca dara mu ne aadama jàngal leen aadama jàngal leen ko ñu mel ne ci lañ ci lañ nangu nag nga neelul aadama ci ñoom te loolu dafa mel ne ci xam-xam la ko sunu borom teg moom lay wax wa allama aadama lasmaa kullaha ثم عرضهم على الملائكه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 kon war na ci xam-xam la aadama féetee kaw ba ñu ba mu sujjutloo malaayika yi ci moom loolu yonent bi firndeel na ko nee na xayrukum xayrukum man taallama alqur'ana wa allama mooy ndey xam-xam nee na ki gën ci yéen seen tànneef mooy ki jàng alquran te mooy jàng xam-xam ba xam ko ba noppi di ko di ko di ko xamle gisuñ fenn fu sunu boroom diggalee yonante bi mu ñaan boroomam mu dolli ko lenn lu dul xam-xam qul rabbi zidni ilma xam-xam rek la ko wax ne ko ñaanal sa borom mu dolli ko kay te kon day mel ne yeneen yi ci des yépp yonante bi doylu na ca waaye xam-xam la kenn dul doylu ba tax mu boroom ne ko qul rabbi zidni ilma xam-xam mooy ndoonal yonente bi di ndoonal yonente ya sallallahu alayhi wa salaatu wa salaam kenn ca saxaaba yi sayiduna abu dar am na bis mu ne jullit ñi dem leen ca jàkka ja ña nga fay séddaleen ndoonal yonente bi ña nga ko fay séddalee ñépp defe na lu nekk la daw wuti jàkka ja bañ demee ab diir ñoom ñépp ñu delsi ci moom ne ko lan ñu waxoon lu mu doon mu ne leen lu ngeen fekk ca jàkka ja ñu ne ko xanaa jataay xam-xam yuy jàngale ay groupe daal yu yuy jàng ñii di jàng tafsir ñii di ñii di jàng moom lañ fa fekk mun na leen ndono laa ngi noonu dem leen jël ci seenub cër kon mooy tekki na yonent bi ndono mooy xam-xam naka noonu yonent moo tax yonent bi waxoon ne al ulamaau warathatul anbiya xam-xam nag noonu mu amee solo kon lu munta ñàkk la moo tax yonent bi ne sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit talabul ilmi faridatun ala kulli muslim loolu li koy tekki mooy sunu boroom dafa wax ci alquran ne nit ak jinde jinne binduma leen binduma leen lu dul ñu jaamu ma wa maa jinna wal insa illa li yaabuduun jaamu yàlla nag mënu mënoo xam ni ngay jaamoo yàlla nu jaare ko ci xam-xam xam-xam rek moo la mën a xamal melo wi ngay jaamoo sa borom kon loolu buñ ci sukkandik sukkandikoo dana leer nàññi xam-xam ni mu amee solo li yonente bi ne xam-xam munta ñàkk da nga ko da nga ko déggee foofu moo tax mu ne sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit te ci xam ci xam-xamu usul lépp loo xam ne lépp loo xam ne moo lay dimbali ci farata mooy tax nga man jëfe farata loolu farata lañ koy jàppe ci usul ci misaal fi mu ne bu fekkoon bala ngaa mën a xëy woor fawoo nga naan nga xëy nga jóg ci njël ci njël naan potum ndox naan potum ndox boobu farata lay doon ci yow ndax moo lay tax a mën a jëfi farata ji mooy koor gi ginnaaw nag jaamu yàlla farata la ci nun te ci xam-xam lañ mën a jaare mën a jaamu yàlla moo tax yonent bi ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslim doomu aadama kon munta munta wéy te jàngul diineem loolu mënul nekk sunu borom dimbali na ko ci bu waxee ci alquran ne moo leen génne fa mu leen bind génn leen xamu leen dara la ca teg xamu leen dara wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a waaye lam ca teg mooy dafa wana ne may na leen jumtukaay yu ngeen mën a jànge ba am xam ba xam dara xamu dara bi mu leen génnee waaye jox na leen a jumtukaay yu ngeen mën jaar ba mën xam dara ta moy ab dégg akub gis ak am xel motax mu tek ci wa jaala lakum samaa wala absaara wala afidata laallakum tashkurun yonent bi waxon na ne mom mi yàlla yoni won moy leral nit ñi seen diine ci alquran fa muy firi alquran mooy ahadis yi dafa waxoon ña waxal ne leen lépp lu ngeen déggee ci man lu ngeen ca mën a jàllale lu tuuti tuuti rek na ngeen ko jàllale ba nit ñi jot ci balligu anni walaw aaya yonente bi ne woon na képp ko yàlla namm ci moom aw yiw dana ko déggloo diineem dana ko déggloo diineem diineem man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin amna ñatt ñu yum waxon ne ñatt yum waxon ne bu nit ki faato léppam day dog dara du ko fekk fa mu nekk ca barzax lu ñatt ñett ñetti bariwut waaye boole won na ca xam-xam bu mu fi bàyyi ñukoy jeriñu idha ida maata adam aadam inqataa amaluhu illa min thalath fa ñatt ya bokku na ci aw ilmin yuntafau bi yonante bi ne woon na wane solo xam-xam ak jàllale ko ni mu amee solo nee na gindi kenn nit kenn nit gindi koo ci yow rek nee na moo gën lépp lu lu luy alal alal lu mu cher cher loolu moo ko gën ci nit ki lay la ay yahdiya bika rajulan waaxidan xayrun laka min xumri naam dem na ba ci solos xam-xam ba àgg ci wax ne kañaan day bu lu lu lu dagan la dara nekku ci aayut ñaar yi rek ci lay ñàkk aaye ñaar yi ñaar yi ñaar benn ba mooy nit ku yàlla jox xam-xam mu di ko mu di ko xamle mas nañoo tudd ci moom ñaari nit moom yonent bi ñaar kenn ki dafa bari xam-xam lool bari xam-xam lool waaye di jëfe xam-xamam kenn ki amul xam-xam waaye mi ngi góor-góorlu ci jaamu yàlla kem kattanam bañ leen tuddoo di leen gam-gamle yonent bi ne leen fadlul aalimi ala alaabidi ka fadli ala adnaakum boroom xam-xam ni mu féetee kaw kiy jaamu yàlla rek te amul xam-xam mooy ni ma féetee kaw ki gën a ñàkk solo ci yéen te moom ki ëpp solo ci ci jullit ñi moo ko féete kaw kon bu ne ki gën a ñàkk solo ci yéen kon loolu mooy ngëneelul xam-xam rek la bëgg la bëgg a wane moo tax waykat ba ne fa inna faqihan واحدا متورعا اشد على الشيطان من الف عابده نانا بن بروم خم خم بو سامو دي دوندو خم خمم مو موم لا شيطان غنا غنا غنا غنا راغال مو غنا تارت شيطان جوني جامو كوتا يالا يو خامني امو ني خم خم ناخ موم لام لا لا لاي ген تي موم تي بروم خم خم اك ني جيفي سين ديني لولو موتاخ مو غنا تارت شيطان jotaay xam-xam yi jóg diko jàngi ak jóg diko déglu fu mel jotaay yu melni nii na solo lol am solo lol motax yonent bi newon na kep ku jóg soobu yoon jóg jëm ci barab ta sàkku jifa xam-xam dong tax la jóg danañ la danañ ko yombalal yoon wa jëm aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ilal janna kon loolu itam danañ ci déggee xam-xam nu mu amee solo am na ci boroom xam-xam yi koo xam ne waxoon na ne képp ku dem ci jataayu xam-xam jataay yu mel nii dolli koo fa donte menn masala la menn masala nga dégg ko fa jàpp ko ci sa xol donte bi nga jógee danga nga koo fàttewaat sax mu ne teewut yiwu kenn xamul nu mu toll maga ca kon loolu itam di wane solo xam-xam am na ci boroom xam-xam yi koo xam ne ba mu demee bay faatu dañ koo laaj ban yool nga gën a xemmem ban yool mu ne ko xanaa dolli ku mel ne masala ci diine mu yool boobu laa gën a xemmeem te kooku boobu ma ngay wuy ji boroomam sayidna abu hurayra radiallahu anhu ci saxaaba yi la bokkoon di ki ëpp lu mu solo ay xadis yonent bi kon boroom xam-xam bu mag la woon waaye ne woon na toog benn jataay dolli ko fa dolli ko fa ci sama diine am fa lu ma xamee lu ma xamutoon moo ma gënal fanaanee dundal guddi gi ci ay julli kon ñoom ñu ñu ñu fonkoon xam-xam lañ xam-xam ci leen nit ñi di mën a xame seen boroom ci la ñu xamee seen boroom ba xam fa ñu ko jaar ci xam-xam la mën a jariñoo ci kéemtaanam yi kéemtaanam yi nga xam ne da ko wàccee ci xam-xam lañ ci mën a jariñoo ci xam-xam la doomu aadama yi mën a xame ci lan lan moo tax yàlla bind ko lan moo tax mu bind ko indi ko ci kaw suuf ci xam-xam la ko mën a xamee ba man caa man caa nekk xam-xam ci la mën a xamee yoonu texeem yoonu texek addunaam ak texek àllaaxiram ba man caa jaar ci xam-xam kon la nit ki di mën a ràññee diggante dëgg ak lu dul dëgg xam-xam moo koy man gis nga sunu borom di wax ci alquran wa ma yastawi laame wal basiru wala zulumaatu wala zulumaatu wala nuuru wala zillu wala alxaruur yooyu yëpp mu ne du ñu yem mu ne silmaxa silmaxa munta yem ak njàccaar silmaxa xol nag lay wax fa innaha la taama al absaar walakin taama al qulubu allati fi sudur mu ne mënuñoo yem lëndëm ak leer mënuñoo yem aljana ak sawara mënuñoo yem waaye loolu lépp doomu aadama ci xam-xam la ko mën a ràññee ba xam ko ci xam-xam la nit ki mën a jaar ba jariñoo njariñ yi yàlla def ci kaw suuf ci kaw suuf njariñ yu baree bari mi ngi ci kaw suuf nit ki ci xam-xamal mën a jaare ba xam ko loolu la koy firndeel mooy ku ne dégg na na Sénégal pétrole pétrole feeñ na fi waaye fii na pétrole bi boo ko xaajoon fukki xaaj juróom-ñeenti xaaj yépp ñi ci biti tubaab yi ci biti ñoo koy jariñoo benn bi rek lañuy ñuy jariñoo noonu lan moo ko indi xam-xam xam-xam moo indi loolu kon xam-xam ci la nit ki mën a jaari ba mën a jariñoo sax njariñ yàlla def ci kaw suuf xam-xam nag boo koy sàkku bu ca xeeb kenn noo mën a toll rek koo mën a dollikoo xam-xam demal dollikoo ci xam-xam donte yaa ko féete kaw alquran misaal na loolu gis nga sayiduna Muusa fekke woon na sayiduna say sayiduna Xudar mënees na wax loolu fekke woon na ko ngir dolli ko ci moom xam-xam te Muusa yonante la waaye bokk ci juróomi yonante yi gën ulul azm ànd ak Xudar wuute nañ sax ci ak ak yonantam waaye fekki woon na ko ne ko hal attabi'uka hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda kon lool limi muy tekki mooy xam-xam ko mën a jëriñoo xam-xam rek demal jëriñoo ca yonent bi nag wane woon na ne am na xam-xam bu am njariñ waaye am na xam-xam boo xam ne amul njariñ moo tax mu ne woon salullaha ilman nafia wa taawadu billahi min ilmin la yanfa ñaan leen yàlla xam-xam bu am njariñ te muslu ci yàlla nag xam-xam bu amul njariñ xam-xam bu am njariñ namu amé solo lim la mën a jariñe xam-xam bu am bu amul njariñ non na la non la mën lore loolu buñ delloo ci mbindum sëñ Tuubaa sëñ da nañu léral hadith bobu wax na ne fa laysa al ilmi wa ihtiwa nafaan wa ihtiwa na du xam-xam yépp am njariñ nak nee na xam-xam bo xamné nit ki da koy sàkku ngir bëgg aw tag aw tag ñu ko yëkkatee ko tagg sëñ Tuubaa nee na xam-xam boobu amul njariñ nee na xam-xam boo xam nit ki da koy sàkku ngir nekk mufti yi wala qaadi yi di àtte wala ñu lay laaj ngay tontu nee na xam-xam boobu amul njariñ nee na xam-xam bi nga xam ne nit ki da koo sàkku ngir ak maasam yëkkati ko mel na ku koy jaamoo di ko fonk nee na xam-xam boobu ki ko sàkku ngir loolu amul njariñ nee na xam-xam boo xam ne nit da koy sàkku ngir def ko fiir ak fiir ngir man caa dajale alal alali àdduna sëñ Tuubaa nee na xam-xam boobu amul njariñ moo tax mu ne fa kullu man li hadihi al ashyaai taallama al uluma bi ictinaai wa lam yatub qabla al mamaati wal kibar mudaarikan ma faatahu waqta alsigar fala lahu yowma alxisaabi yowma alsuaali walxisaab سوى وبال وملام وعذاب wa كيب كو خامني يي مو واخ مولا yii ساكو جي خام خام taxa sàkku ji ëllëg musiba rek nga fay dajal boo demee ndax yàlla taxutoon ngay sàkku xam-xam ba li waral loolu mooy li anna ilmahu yasiru xujja gadan alayhi faxsha tilka alxujja nee na xam-xam dafa war a doon saw lay saw lay la war a doon waaye boo boo sàkkoo xam-xam ngir yii day doon aw lay ci sa kaw ci sa kaw kon loolu itam kon loolu xam-xam yooyu amul njariñ kon kon musiba lay jur moo tax yonent bi waxoon loolu sëñ Tuubaa nag indil ñu xam-xam yi am njariñ am na yu mu ci indil xam-xam yi am njariñ yan la mu ne bal naafiu ilm alladi ilm alladi qad allama fatan uyuba nafsihi fa alima nee na xam-xam yi am njariñ ba ca jiitu mooy xam-xam boo xam ne da lay xamal sa sik sa sikki bopp ba nga manako dindi ba nga dindi tagok sik yoyu ayibi ayibi yoyu ba mën am xol bu sell amna sik biir ni mu amee biti ne la amé bakari biir motax sunu borom ne ci alquran wadaru waahiral ithmi wa batina moytu leen bakari biti yek bakari biir seigne touba ne xam-xam bi am jariñ moy bu nga xamne day dalay gennel sikus kanyam génneel la ko ba mu set génneel la sikku su reuy génneel la sikku su mbagnel mbagn nit jek jek nit sof la nga bañ ko te mënoo andi wenn lay woo tek dalay la sikku su naw sa bop ak naw sa jëf andil la nak andil la mën muñ andil la am jariñ andil la lawet andil la loy def yalla tax andil la kersa andil la ngay laabiire jullit ñi lepp lo xamne xam nga ne njariñul jullit ñi la nga jéem di leen ko laabiré sa kem kàttante yàlla tax ci gàttal mu ne wali taxalluqin bi xulqin xasani fi sirr wal jahri bi xayril ihani xam-xam bi am njariñ mooy boo xam ne dalay may jikko ju rafet mu ne xam-xam bi am njariñ ba tey mooy boo xam ne day fàggul nit ki ragal yàlla da koy wommat jëme ko ci ko ragal yàlla wommat ko jëme ko ci toroxlu muy wàcce boppam wommat ko jëme ko ci dëddu aduna bari tagin ak torox toroxlul borom ak aaju wo jëm ci mom di labal xolam diko notal bakanam diko notal bakanam diko musal ci moy yàlla mune fal ilmu in lam yuhdi shakhsan lil huda fa innahu yajruhu ila rada neena xam-xam bu la wommatul jëme la ci jub day dalay wommat jëmale ci alkande waaye du la bàyyi ci diggante bi kon foofu nag fi ngay déggee la yonente bi ndax woon ñaan leen yàlla xam-xam bu am njariñ te lu ci yàlla xam-xam bu amul njariñ ndax sëñ Tuubaa nee na xam-xam bu la gindiwul rek dugal la ci alkande wala ayaatu billahi taala xam-xam ni mu amee solo moo tax yonente bi ne woon malaaka yi sax malaaka yi la ñuy tëdd tëdd wàccel seeni laaf buñ gisee kuy sàkku xam-xam إن الملائكة ملائكة لا تدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع غير كونتان دوني كونتان تلا موي ديف دي ساكو خام خام ملائكة يي سوني بروم نيوون جاعل الملائكة رسولا أولي أولي أجنحت لا نيو أمي لاف سين لاف يوي نك نينا دنج كوي واتيل بروم خام خام ملنا رك كيليفا غوجيغي وون في دي رومبو دي رومبو نون كي كين كو ني ديفار وات بانك سايتانك ba mu jàll non nak lañuy misalé ni malaika yi di defal buñu gisé koy sàkku xam-xam xam-xam nak amna yo xamné furudul a'yan la farata la ci kenn ku nekk mu jàng ba xam atay dinem atay dinem lu mel atay lap mo ci jitu ndax l'islam gëm yàlla bu jalle julli ci gëna mag te julli munta wir ta lap gu mat amut motax tax rifiqi ngay gis ñuy jëkke ñuy jëkke laab sëñ Tuba nee na araam na ci mépp mu kallaf muy songu genn jaamu yàlla te jikku te jàng ba xam la ca yàlla ate ne na loolu moom moo moo ko waxal boppam mu jël engagement wax ko qultu wa qad xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqida filan bi gayri ilmi xukmi sharici fiihi fada nassu dalilun qatci kon sëñ Tuba loolu la loolu la loolu la loolu la leeral ci hadis boobu leeral ko ci xam-xam moom nag nan la nan la dunde xam-xam moom sëñ Tuubaa nan la ko dundee sëriñ bi dafa feeñ ci bii almiya moom li ñuy wax doomu daara doomu daara la ndax ci dafa fekk ay waajuram ak i maamam di nite xam-xam di nite xam-xam maam moronta sa di mi waajuram dafa laxasi woon diggante kajoor ak njaambur ba saalum jàng jàngi xam-xam jàng ba giiju ci xam-xam ñëw ubbi daara ubbi daara di jàngale ba daaraam wax nañu dañ koy misaal lu mel na jaamia la woon université ba boo xam ne matière yëpp wala yu bari dañ ko fay jàngale xam-xam Maamor Anta buñ delloo ci xasida gi sëñ Moussa Ka taalif tudde ko miraatu ulil absar dana fay misaal xam-xamam bu bari ma nga naan fa huwa cheykhun aalimu daqaiqi bayna charaa'i maa alxaqaiqi walnaxwi wallugati walbayaani walfiqhi walxadithi walmaani ci ci gàttal Maam Mor Anta Sali ku géeju woon la ci fànni xam-xam yépp Maam Asta Waalo mi nga xam ne mooy waajuru Soxna Jaara moom it daara la yoroon di jàngale di boroom xam-xam la woon lool di jàngale xam-xam ba tey sëñ Moussa wax na ca xasida ga di misaal soxna Stawaalo naan soxna sa fóori la dadaa yére ya di tërëral donga ya mboolem téere ya foofu la sëñ Tuubaa feeñee sëñ Tuubaa foofu la feeñee kon bu waxee waxam jooju mu waxoon du bett kenn bu waxee ne walastu raadiya xayril ilmi wa diini lu dul xam-xam ak diini ëwuma ca soxla duma dox du ma dox jëm ca kon bu waxee loolu ñépp xam nañ ne yanu na ndax lii mu fekk ay waajuram sëñ Tuubaa ci xam-xam dafa mel ne xam-xam moo dindi sikki sàkka ci ji nekkoon ci ay waajuram ay kilifaam dañoo demoon ba am sikki sàkka ci ndax xel mi dara sekku ci ndax woote gu mu woote wuute woon ak ay ay ay ak maasam ci zahir ba muy doon tut tànk dalagul jàng ndax du fo du bëri du xuloo du xeex kenn du xam lu ko naqari te du jaxasoo ñoom fu mu toll day beru melo mu amee woon ci jamonoy tut tànk nag te nuñ ko ci maasam loolu jaaxaloon na ay kilifaam ba ñuy sikki sàkka ci insaaniyam ndax xel mi dara siku ci waaye ba mu duggee ca daara ja nag dal jàng tàmbalee jàng xam-xam alquran tàmbali ak xam-xam yitte ja mu jox njàng ma moo leen xamal ne ndekekat xel mi dara sikku ci waaye sunu borom moo def ci moom ay kiimaanam kon ci xam-xam xam-xam mooy digg wi dox diggante sikki sàkk jañ amoon ci moom léegi nag am nañu yàqin ci moom xam ne sunu borom moo def ci moom kiimaanam sëñ Tuubaa xëroon lool ci jàng bam mu ci jang xeyrun lol ci xam-xam sunu borom dako koo won xel mu neex moy ku manona mokal mokkal delo ci mbindum sëñ Mat Lamin ak sëñ da na ñom ñepp ñi ngi ñi ngi ñi ngi tuddu manam mokkalu sëñ touba jamono yimi jang na ci Minanul baqil khadim ne sëñ Masamba ak sëñ modou Moustapha ko ci ne natali nako nako sëñ Tuba nee na leen ba muy jàng nusuus yu bari yax yu bari yoo xam ne weesar la woon yu naqaree mokkal nee na da leen a mokkaloon moom ci xeeti fànn yu bokkut fànnuk tawxiid fiq tasawuf ba di ba ci addiya yi xeeti ñaan yi dalaa'ilul xayraat yu yëpp nee na da koo mokkaloon sëñ Tuba da koo mokkaloon sëñ Basiru ne Cheikhul Xalil sax de li muy rëy rëy mel na ne mokkaloon na ko donte ñoom tudduñ ko bañ may nettali loolu waaye ndax daana toog di ci waxtaan di juqati ci ay masala ci juqati ci ay barab yu bokkut loo xam ne ku ko mokkalul ku ko mokkalul rek mënoo ko kon man jàpp na ne mokkaloon na téere boobu moom la mag ñi daa waxal lawal ak saan yi kon sëñ Tuubaa kéemtaan la woon ci mokkal bu ñu waxee mokkal yooyu nag alquran ak hadis moom kenn waxaale wu ko ndax moom moo seen moo doon seen ndab sëñ Tuubaa ndabul alquran la woon di woon ndawul ndabul ndabul xadis di ko sonn ci xam-xam daana liggéeyal way juram maam Mor mooy way juram waaye moo ko daan jàngal moo tax sëñ Bachir di ko tudde a cheikhul walid mooy sëriñ bi mooy jàngale waaye mooy way jur yi sëñ Tuubaa di ko liggéeyal ngir sàkk ko ci moom ñaari barke barkeeb way jur waaye barkeeb sëriñ bi lay jàngal barkeeb xam-xam daana ko liggéeyal lu mu am jox ko ba nee na mamaronta sali daana mujj bu gisee ci kër gi eh, alal lu lu mën a doon rek buñ nee ko maa ko moom da koy wóor na ci moom ci moom la jëm si ndax xam na ne lu ma am jox ko nee na booba bokk na ca lam ci juble woon sàkku barkeb xam-xam dafay loolu ku ne xam na ne sunu borom defal na ko ko sëñ Tuubaa di ko yittewoo woon jumtukaayi xam-xam mooy téere téere da koo yitteeloon lool ba mu tolloo ci jàng amul lum jëndab téere sax daana sonn ci amuk téré amna jamono yi ñi nek salum jamono mabaja. mabaja téré bi mu jëk am fa la ko amee na wax né nam ko amé moy da ko gis ak ben nar mu koy jaay té amul lum ko jëndé nee na ma ko nañ dem ngir sabab lu ji lu mëna a téré ndax mom na bu ma sana am yitté du ko laaj kenn day genn rek genn rek diko ko di ko di ko ngir sunu borom bay ko ko waaye du ko laaj kenn ndax bëggu la sonal kenn nee na ñu ànd dem ci benn koo xam ne dongab baayam la dongab ma Mor Anta Sali ko koo xam ne ab commerçant la nee ca moom la dem ngir xay na mu mam man faa amee lum jënd téere bi nee na ba mu demee nag daanaka mbubbum donga la sol mbubb mu mim sol mbubbum donga la daanaka ay sagar la nee na taalibe baayam boobu di yàdd kilifa doomu kilifa gu toll na yow nang yu mel noonu nee na daa ji génne mel mbubb mu rafet mu yees jox ma ne ma sol ko nee na ma subbi sama ma summi sama sakar ya ma soloon ngir ngir rek maslaa sol mbuumoo ma waaye nag sànniwuma ko dama dem ba ca yoon wa fa ñuy jaar ba ñu ñibbi ma ma làq ko fa nee na ba ñu demee ba tàggoo bay dem ma ñëw ba fa ma ko làqoon ma jël ko summi mbu mu yees moom mu ma joxoon solaat samay sagar ne naar bi doon jaay téere bi ndax mu mii mbubb mi jaral na la téere bi mu ne ma jaral na ma ko mu nee na ma jox ko ko jënde ko téere ba téere bi mu njëkk am nee na noonu la ko ame am na téere boo xam ne nam ko amee sax moo gën a metti ndax da ko soxla woon ñu ne ko diw di moo ko fi am waaye nee na ab baykat la nee na ñax ma da ko sonal day ba muy nar ba mu nar booyal ba mu booyal loolu ku ko xamul mooy sunu borom bu wàcceem ndoxam buy saxal moom dana saxal li nga jiwoon waaye dana saxal maneen ñax ndax mbay mi nit ñi rek dañ ko taxut a jóg nit ñi ci lañ waaye jur gi ci lañ gis nga fa nuxriju bi zar'an taakulu minhu an'aamuhum soog ne wa jur gi sax la jiital jur gi lekk ci yéeneen ngeen jariñu ci ci balaaxam alquran day mel ne li tax mu të tudd jur gi mooy jur gi moom bu ñax mi tambale génn rek mu tambalé jariñu mom yow nit ki nak da nga néggandi ma bay mi ñor nga soko mëna jariñu kon lay lek nak ñax momu sax ci say tol lay lek mu dem ba sonal la ba bayul rek man na and ak gantax gi nga soxla won nga boyal ñu ne koko ñax da ko solal bam na ra boyal neena ku ku ko ba nak mu jox la téré ba señ touba la yu dem bàyyile ko ba wam set ngir mën a jot ca téere ba téere ba téere ba arut la woon kon loolu di wane nu mu yitte woo woon xam-xam lool mën a mokkal googu ak fonk téere googu da ko topp ba ci mujjëm sëñ Basiiru nee na ci mujjëm ci njaareem am na bis ma ñëw fekk ko mu teg ci kanamam téere bu ñu wax mu tes tashiin téere bu jafee mokkal la ak yi dem ak ay tuuraram nee na mu teg ko ci wetam nee na ba mu ñëwee mu ne ma téere bii dama ko mokkaloon ca jamono ya ma koy jàng te booba ñi ko mën a mokkal ci dongo yi sax bariwuñ ngir jafe mokkal mu ne ko dama ko mokkaloon ca jamono ya ma koy jàng dama koo génnewaat tey nag doon ci nattuwaat sama bopp ba xam ndax mokkal ga mi ngi fi ba tey nee na waaye gis naa ne ba tey maa ngi koy mokkal sëñ Bachir Ndar jamono yi muy def lii mbooloo mi ak raj raj loo jeeg gan ñeeg liy sotti ko ci kawam ci njaareem kenn xamul lu mu toll waaye ànd ak loolu lépp muy wane yittewoo gi muy yittewoo xam-xam ba tey noonu mu yittewoon téere ci ci njaalbeenam ba ci mujjëm noonu ko noonu la ko yittewoo cheikh mouhamad abdullah al alawi na ci téere bi mu bind ci sëñ tubaa an nafahaatul miskiya nga xam ne moom bi mu koy bind sëñ baa ngi fi wax na ne sëñ bi ku ku ku yittewoo woon téere la daana jënd ab téere ñu indiwaat ko mu jëndaat ko ñu indiwaat ko mu jëndaat ko du ci doyal nee na daanaa dugg ci maktabaam fi mu denc ay téere am gis fa benn téere boo xam ne rek fukki nu sax dana ca am ci benn téere mu ne def na ci sax bu yemu ci sax ci jënd gi waaye day bind lu di ca boole wut ay nit ñoo xam ne da leen di fay dëkkal leen ci këram seen lépp mu war warlu ko ñu koy bindal ñu koy bindal ay téere nee na def na ci loo xam ne sax ngir yitteem ju kawe sëñ Tuubaa yitteem ju kawe tax na def na ci xam-xam loo xam ne kenn xamul ku ko ca mas a def nee na am na jamono yoo xam ne dafa yónnee ngir jënd mboolem téere yi al aimatul arba ñeenti imaam yi imaamu abu xanifa imaam malik imaamu shafii imaam ahmad ibnu hambal seen téere yëpp sëñ Tuubaa yónnee nee na moom lañ yónni woon moom moom alxalabi moom lañ yónni woon Égypte mu dem jëndali sëñ Tuubaa téere yi mbooleem ñeenti ñeenti ñeenti imaam yooyu te menn imaamu Shaafi'i rek wax nañ ne taalif na ci téere lu mat téeméeri téere ak fukk ak ñett téere yi ñeent yëpp nag sëñ Tuubaa dajale ko alxalabi teg ca wax ne wa haadihi maa faalaha ahadun qabla من علماء المغرب ولا من ملوكه نانا جف جو ملني جيس امول كان كوكو مسا ديف تي سوو جانت بي دو تي سيني بورومي خام خام دو تي سيني بور داي ملنا دافا تود سوو جانت غير ماندو واي كو ديمون بانكو جانت ديفنا دو جيس كو مسا ديف لو مل نونو سيغ توبا ديف تي خام خام غناو تيري يوي موي داجالي ديكو جند ديكو بندلو دافا تاليف تيري بوبام موميت ay diiwaan la sëñ Tuubaa taalif ci wàllu xam-xam ci fànn yu baree baree bari am na suñu mbokk yu baax yoo xam ne mooloon nañu diiwaanu diiwaanul ulumi diiniya nga xam ne sëñ Tuubaa da koo taalif ci wàllu xam-xam ba mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci defe naa maktaba yi matière yu bari sëñ bi taalif na ca fànn yu bari taalif na ci aqida pas-pas pas-pas nu ñuy gëmee yàlla ak nu ñu koy wéetali sëñ Tuubaa taalif na ca ba ca gën a ràññe ko di mawaahibul quddus تالف نجا فق تيري يباري بچا گنا رانجكو الجوهر النفيس رسالة دون بندات شيخ خالد بيمو تدون لايكي صح واخنا نجا دون نكو واي تصوف بند نجا بچا گنا رانجكو دي مسالك الجنان في جمع ما فرقه الديمان نحو غرامير عرب سنتوبا بند نجا دي سعادة الطلاب سنتوبا شارانا باتاي نحو شارانا الفية تمنو مالك شارانا sarf bind na ci ndax sharaana nuzhatu zarif yi nga xam ne ay qasaid lan sax di rabbaniya ñu koy jàng ngir jaamu yàlla da cay li muy doon doon ay qasaidi jaamu yàlla léeg-léeg mu cay mu cay wane bëgg xam-xamam gis nga qasida gi tàmbalee ahmadu hada qaala inni ahmadu li anna xayra alqawli inni ahmadu ma ngay wax ca biir hada wa qalbi kilmata shukuri am wa kilmatun biha kalaamun qad yu am di ci indi misaali ibnu malik yooyu te xasida googu loolu xasida gu ñuy gu ñuy jàng la gis nga ci biir xasaayid yi mu cay ñaanal ñiy sàkku xam-xam boo demee ca mujjug mafatihul bishri mi ngay wax naan ubi tawaali fii anir quluba man yaltamisuuna al ilma fi kulli zaman samay taalif na nga cay leeral xoli xol yi ñuy sàkku xam-xam foofu nga gis nga gis ne waxut xel waxoon nga leeral xelam xoolam la wax ndax xool bu setut leeru xam-xam mënut a dugg ci nit ki wax na lu mel noonu ca jaalibatul maraaxib wa bi anir qalb alladi taallama kon loolu di wane xam-xam ñor gu mu ñor sëñ Tuubaa ba asaid yi sax mu cay mu cay wane xam-xam kon morit bi murit bi bu fekkee dafa doyadal xam-xam murit bi bu doyadalee xam-xam ci fan la koy teg ak ni seigne Touba son na ci xam-xam xana famuy teggu day moy fa seigne Touba waxon na fa la teggu neena mouride seen buñ doya dalé xam-xam pexe shaytan rek la wa min madarrati lain aida axzahu baqin li yudi mufayda saddul muridina an taallumi li wajhi rabbina al alimi al alami nee na pexe seytaan rek yenn di dëddu xam-xam ak di ko doyadal ak di ko dëdduloo di ko dëdduloo nit ñi nee na képp koo xam ne sànk na sànk na xam-xam ba jàngut farata ba xam farata sunna ba xam nu mën a jaamoo yàlla ku def loolu kooku ku sànku la te ku ko topp mu sànk la ku sànku la te ko topp mu sànk la te bu ëllëgee dana ko rëccu fa kullu man daya ilman bi sunan wa bi faraida ويرتجي المنن فهو ذو الدلال والإضلال جزاؤه انتقام ذي الجلال نينا كيب كو ساغاني خام خام با خامو فراتيك سوني با مانتي جامو صبروم با نوبي دي ياكاري خيول نك جيمو جانغ سا دين با خام كو با خام نو مانا جامو صبروم دي فوكو با نوبي دي ياكاري خيول سيغ توبا نينا كوكو كو سانكو لا تا كوكو توپ مو سانك لا تا بو ëllëgé da na ko réccu lolu sëñ touba ko te gannaaw géej gi la ko bind nag gannaaw géej gi xam nga dafa am ci murid yi ñoo xam ne boo leen waxee wax yu mel nii dañ naan la loolu jiitu na géej gi booba may ñëwagut bii nag booba may ñëw na moom ndax wax na ca biir ne nadamahul xadimu ama baax baadal ana min jay sashin li jag sashi nee na sëñ Tuubaa nee na ama daksash laa way parce que dëgg yi mooy bi jihaar jeeg coono yëpp jeexee xéewal yi tàmbali nee na ci laa bind lii kon loolu ku ne xam na kon lu ko lu ko yitteel la bu magi murid yi magi murid yi sëñ Tuubaa ci xam-xam la leen jaarale woon danaa ci jël ñaar ñaar ñoo xam ne moom jàpp nañ ne ñoo ñi gën a daanukate ci murid yi ku mel ne Cheikh Ibra Fall radiyallahu taala anhu Cheikh Ibra wax nañu ne bi mu ñëwee ci sëñ Tuubaa risaala la ko jëkk a jàngaloo risaala te risaala ku ne xam na ne kenn du ca tàmbalee kon tàmbale woon naa jàng xam-xam soog a ñëw ci sëñ Tuubaa ba mu di ko jàngaloo ba mu tàmbali koo jàngaloo risaala sëñ Bay Saar mooy ñaareel bi ku ne xam na ko ci daanukat waaye nee nañu ba ñu ba muy ñëw ci sëñ Tuubaa salma chita la woon salma chita mooy koo xam ne lu loon neex ci mas masala yi diine laaj ko ko loo ko laaj mu tontu la géeju na ci xam-xam soog a ñëw ci sëñ Tuubaa kon loolu wana na ne sëñ Basiiru wax na ko nee na yoon wa sëñ Tuubaa daa jëkk a jaarale taalibe yi awwalu maa yaaxatuhum bi mooy jàng jàngal leen xam-xam ndax ci topp yàlla la leen woo sëñ Tuubaa dafa woo taalibe yi ci topp yàlla te wax na ne képp ku jóg jëm ci topp yàlla te jéemoo jàng ba xam na nga koy toppee sa bopp feesut sa bopp feesut ndax topp yàlla mënut a ànd ak ñàkk xam-xam wa man tajarrada li taatil قبل تعلم فغمر لا نبيل سيني توبا غناو نجانغالي ميك يو ييب دافا دافا سوس اي دارا سيني توبا دافا سوس اي دارا فوم مسا تولو ريك فوم مسا نيك سوس نافا دارا بيمي نيك توبا لو جيتو موي ديم سي جيجي دارا يو ري لا في سامبون دارا القران سيني دام عبد الرحمن لو يوريكو دارا خم خم مام تشارنو يوريكو رضي الله تعالى عنهما bi mu nekkee Touba daara yi nanguwul woon dongo yi di jaxasoo di jaxasoo kenn nanguwu ko woon biñ demee bi mu demee ba jaxasoo bi tàmbalee bari am murit yuy jóge ci yeneeni dëkk di sanc si Touba ñu nara rax dongo yi ci la diisoog sëñ Bakki Bousso ngir wuti beneen barab boo xam ne dafay dem wéet fa wéet fa ak dongo yi ci lañ ci lañ euh, euh, gis Mbàkke Bari seen xel daj Mbàkke Bari sëñ Touba toxoo Touba dem Mbàkke Baari Mbàkke Baari la ko fa taxoon a dem mooy daara ji dafa bëgg a wéetali ba muy dem sëñ daam dong la yóbbaale ak maam Thierno ak seen i donga bi xisbayhima la sëñ wax ñoom ñaar dong ak seen i donga la yóbbaale ñoom ñaar ñooñu sëñ Touba mas na leen a wax ne yéen ñaar ñii moom dama leen a munta ñàkk dama leen a munta ñàkk muy sëñ daam ak maam Thierno ngir lan ngir ñoo ko féete ci wàllu xam-xam bi kon noonu la sëñ Touba yitte woon xam-xam li wanane ba muy dem bakki Bari dako dafa sanc won ngir mu nek daara jàng wax na ko ca jasaawu shakuril atuf ka ko doon laaj yoonu géej bo demé ci bir biir wa shakur wax na ca ne ولقيت وزيره wazirahu alladhi jamaa jayshahu ila tilka ad-dar al noon lit-ta'allumi wat-ta'lim non ba nga xamne jógoon na ngir ngir ngir songi Mbàkke yi dëkk boobu nga xam ni dama ko sancoon ngir jàng rek ak jàngale bi muy dem ci géej gi kàddu yam mujje wax maam Cerno sëñ Basiiru natt na ko nee na daf ne ko alayka bil ilmi wa taalimi wal xard dénk naa la jàng ak jàngale ak mbay ndax mbay moo leen mën a moo leen ci mën a dimbali kon loolu kàddu yooyu bokk na ci yim mujje tàggoog maam Thierno mi mu dénkoon njaboot gi bi muy dem ba mu demee ca géej gi sax géej ga wéetoon na fa ba mënu faa sampi daara waaye lam fa nekke woon mooy jihaad jihaad jam fa nekke woon wana na ci xam-xam la ko teg ci xam-xam la doon jihaadi inni ujahidu bil ulumi bil ulumi wa bit tuqa kon loolu mooy wana ne xam-xam fu mu mas a rek sëñ Tuubaa xam-xam la fa la fa nekke ba mu ñëwee jóge ci géej gi daa di tàmbaliwaat daara yi gànnaar moom daana fa jàngaleel boppam dafa tàmbaliwaat di jàngaleel boppam ca gànnaar gànnaar fa la taalifi téere bi ñuy jëkk a jàng fii daanaka booy boo boo noppee ci alquran ji téere ba ngay jëkk dal ci xam-xam muy tasawudu sixaar gànnaar la ko sëñ Tuubaa taalifi samp fa daaray alquran ni mu defoon Tuubaa daaray alquran mu mu jox ko sëñ Mbay Jaxate sëñ bay jaxate moo yoroon daaray alquran ji sëñ tubaab bi mu ñibbisee ci géej gi ci ci ci ñi mu amoon ñi ci mag mel num sëñ Bachiru moo ci moo ci noppee gutoon ci alquran ji ci sëñ daam la doon jàng ba am luy toll ci fukki xisib matagu ko waaye yu manqué tuuti waaye da koo jël yóbbaale ko gànnaar jox ko sëñ bay jaxate moo ko jàngal ba mu mokkal kon sañ bay jaxate moo yoroon daaray alquran ji ca gànnaar ku ñu wax sëriñ Moor Mbàkke turi yor daaray xam ji kon fu mu mas rek ba mu ci yéen jolof fa la taalifee téerib naxju naxju qadaayal xaaji ci yéen la ko taalifee kon fu mu mas a nekk rek ma ngay bàyyi xel xam-xam bi mu ñëwee njaarim moom njaarim nga xam ne lam bëggoon ci dal fa la ko amee fa la nag sampe daara yi nag daara yi nag gën a jolli ca njaarim ñaari daaray alquran yu mag ne fa sëñ Moodu Awa yor jenn ji sëñ Njaay si si yor jenn ji ñaari daara yi xam-xam yu mag ne fa sëñ Mat Lamin jóg Dagana amee jenn ji sëñ Mat Dem amee jenn ji radiyallahu taala anhum njaareem googu taalif na fa téerib aqida bu ñuy wax faydul ganiyil mughni fi nadmi ma ani suluki yughni taalif na fa baneen masalikul jinaan fi xidmatil mutahharil janaan foofu njaareem la leen taalifi moo tax sëñ Mat Lamin di misaal ni njaareem meloon ci ay daara daaray alquran ak daaray xam-xam mu ne njaare mujj na di dëkk bi gën a dund dëkk bi gën a dund ngir ay jàkkaam yu bari ak daaray xam daaray alquran naaram daaray alquran naam yu bareek daaray xam-xam yu bari daaray alquran yeeg daaray xam-xam yi fa alqaryatu amara qaryatin bi masajidiha wa madaarisi alquraniya wala ilmiya ànd ak lépp nag sëñ Tuubaa bàyyi na fi naal loolu moo liggéey ci xam-xam lépp taalif ci téere jàngale samp ay daara téewut mu bàyyi fi naalub daara ju mag a mag niñ koy ni ngeen ko xamee ñetti naal yi mu fi bàyyi jumaa ji ak bëggoon a aji loolu makka ak daara ju mag daara xam-xam ju mag mel na ne naal yooyu boobu ba léegi euh, ñi ko fi wóotu ñi ngi koy ñi ngi ciy def lañu man lépp tàmbalee ci daara ji sëñ Fàllu sampoon fii bi jumaa ji àggee di daarul maarif ba fi mu ne nii ñu fiy jàngale ak daara yi ci topp yëpp yëpp ba ci Cheikh Mourtada al Azhar ku ne xam na ni mu amee solo ba ci mu jammaa bu mag bii nag daara ju mag ji nga xam ne moom la sëñ Muntaqa mi naal nga xam ne boo àggee moom day mel na nag naal wa dëgg dëgg nag sotti na yàlla na yàlla na ko sunu boroom àggale ci jàmm kon loolu moo doon ñaareel tomb bi ni sëñ Tuubaa dunde xam-xam tomb bi ci topp te mooy doon bu mujj bi mooy soññee yi mu soññee ci xam-xam nag sëñ Tuubaa ni mu soññee ci xam-xam wane woon na ne xam-xam lu munta ñàkk la jàngale wërtéef jàng ba am xam-xam lu munta ñàkk la boo jàngee ba am xam-xam jàngale wërtéef la am na leetar bu mu bindoon leetar bu bindoon boo demee ci irwa sëñ Mat Lamin indi na ko fa di soññ murit yépp ci ñu jàngi da koo tàmbalee innahu minni ila jamii almuridina walmuridat salaamun tayibun yaasimu aljamia min almaridina walmaridat wa yudxilu aljamia fi alsalaamati walaafiyati fi aldunya walaxirati bijaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baaraka daf ne leetar bi ci man la jógee moom sëñ Tuubaa mu ne ci man la jógee jëm ci mboolem mourid yi góor yéeg yu jigen yi jigen yi da leena a indi foofu mboolem murit yi góor yéeg yu jigéen yi ñaanal leen jàmm ak mucc ak jàmm àdduna ak alaaxira bam ca noppé ne amma ba'du fa inni amartu kull man ta'allaq biya li wajhi allah taala al-karim bi ta'allum al-aqaidi wa at tawxidi wa ahkam at-taharati wa salati wa siyami wa ghayriha min kull ma yajibu ala kulli mukallaf nee na gannaaw loolu maa ngi digal maa ngi digal bépp murit bu aju ci man ngir yàlla kon wana na ne yàlla tax ñu di ko topp bépp murit bu aju ci man ngir yàlla maa ngi lay digal nga jàngi sa diine jàngi nu ñuy gëmee yàlla ak nu ñu koy wéetali jàngi attay laab jànge attey julli attey koor ak attey attey feq yépp na ko jàngi ba mën a xam noo mën a jaamoo sa borom lépp li nga xam ne xam-xam la bu war ci mu kàllax mu jàngi ko digal naa képp bépp murit bu aju ci man na ko jàngi ba xam ko loolu ñoo xam ne ndigalu Sëñ Tuubaa la foofu la leetar bi yam am na feneen fu mu wax ne dénk naa leen dénk naa leen yéen mboolem taalibe yi ngeen sàkku ci xam-xam xam-xam bu ànd akub yar bu ànd ko biyar farlu leen ci xam-xam farlu leen ci bi yar ndax yooyu kat lépp lu nit bëgg ñoo la ko mën a indil ñoo la ko mën a indil wasaytukum yaa jumlata tullabi bi talabi alilmi maa al aadaabi ijtahidu fi lilmi waltaaddubi walsaayi wa hiya jaalibatu raxabi dafa mel ne soññe yi soññe ci xam-xam da cee jagleel ndaw ñi nag ciir bu rëy rëy ndaw ñi ndaw ñi yéen ndaw ñi bu leen def seen yitte lu dul bumi ji ak njub seen yitte bu muy nyakul ji alal ko li wolof di wax boroom karaw gu ñuul ñàkkul dara seen yitte nay ak njub ba noppi seen nay xam-xam seen yitte nay xam-xam seen yitte nay jema a alquran mokkal ko ak diko ko jàng nag tilaawa di ko jàng di ko ayuha لا تشتغلوا عن الهدى وبالعلوم اشتغلوا فاشتغلوا بالحفظ والتلاوة واجتنبوا مجالس الشقاوة نانا نيجي نواتاندكو نك جتاي تخيدي جتاي تخيدي نك لاغي داي ملني مانس نكو ديغتي الشبكات الاجتماعية ريزو سوسيوي مجالس يفاي ام امنا تي ام جارين خاينا واي بارنا تي نك يو نياك سولو لول misal bo demee whatsapp whatsapp ñetti majalis lañu bokku bu ci ne nit ki da cey da cey da cey garam place day dugg ci groupe da nga gis kenn ko xam ne bokku ci groupe ay fukki fukki groupe la bu ci ne muy setan vidéo ya di di déglu audio ya di lire mbind ya lay léeg mu am ak whatsapp bopam mu cey mu cey waxtaan ñuko cey wax mu cey tontu léeg-léeg am cey yu ñor lay léeg am cey yu ñoo nak am cey yo xam du ñor lay mu dugg esthétique esthétique moom it da ci dugg di setan yo xamne le mom mo ci gëna a ñorati ndax kep ko am sa numéro nga am numéro rek lu mu nga setan ko te leg leg am ca yu ñak solo lol kon majalisu shaqqa day melni fimne ni sax lañ ko gëna deg ci bako señ sëñ di wax waye mom gis-gisam bu sori day tax li li li li li mi wax lu jamono dem rek ñu gën di ci tek beut léeg-léeg nga jóge fo banen banen banen majlis muy Facebook batay momi da ngay duggu da nga ca gis loo bëgg a gis gis ci loo bëgg ko ci gis dégg ko ca seetaan ko ca léeg-léeg nga dugg Facebook moom moo lay jàllale léeg-léeg mu jàlla ñu jàllale la fa yóbbu la YouTube dañ dafay wan loo xam ne faw itam ngay dugg seetaan ko fa moom it da nga fa gis boo fa duggee ñu tegal la ca wet ga loo bëggut a gis lay léeg ginnaaw xel moom day bëgg découvrir lii lu mu doon léeg-léeg nga gis ca loo xam ne itam lu ñàkk solo loolu lay doon kon majaalisu shaqawa yu mat di bàyyi xel la waxtu ñu koy jeexal ci réseau sociaux yi xëy na am na ci yu am njariñ waaye nag nañuy nañuy jëm ci laneen nañuy jëm ci laneen ba bañ a bañ ñàkk suñuy waxtu ci lu mel noonu Sëñ Tuubaa dafa soññee ci istimraariyatul ilm xam-xam daa waxoon ne daa war di continuer jàng naa ba jàng naa ba noppi naa nee na déedéet bis bu ne rek jéem a la dolli ko xam-xam wala tekun في كل يوم تاركا تعلما وعمل به مداركا وانا وانا كيب كوي دوخ صديق خم خم دي لكو تري اك چان كوري دونغو چي لكو چي لجمي چي بدال لجمي چي فتن سخ لجمي سنت واخون نكو ومن نهاكم وان التعلم فنهيه الى الضلال ينتمي ومنه فر انه لفتنه يضل ومنه فر انه لفتنه yudillu kul kulla man bi xayrin zanna nee na na ngeen ko daw na ngeen ko daw sori ko ndax ci cànkute la leen jëmee ci fitna la leen jëme Sëñ Tuubaa wane na itam ci wërteefu wërteefu jàngale ku jàng ba xam-xam da war a jàngale nee na talaazumu taalima wa taalluma am na leetar bu mu bindoon maam Cerno bi nga xam ne moo doon jëwriñam bindoon na ko leetar ne ko وليجتهد العلماء بما علموا ñi nga xam ne jàng nañu ba am xam-xam soññu leen ñu farlu ci jëfe lañu jàng boo jàngee ba am xam-xam di jëfe li nga jàng loolu xeetu jàng la ndax yonent bi ne woon na ku jëfe li nga jàng sunu boroom dolli la xam-xam boo xamutoon man amila bima alima warathahu llahu ilma ma lam yaalam mu ne kon nañu farlu ci jëfe li ñu jàng wa fi taalimi man jahilu nañu farlu ci nam ci jàngal ci jàngal ñi réer ñi xamut nañu leen jàngal nañu farlu ci loolu waaye wa yajtahidi aljahiluuna fi suali wa fi taallumi walqiraati ala alulama ñi amul xam-xam itam nañu farlu buñ demee ba weesu jàng di tëralu itam laaj moom kenn du ko weesu képp ku la tane loo xamut na ko laaj te koo mën a du du jafe ñi ñii weesuwul lu mom nañu dem jàngi ba xam seen diine néna mu tek ci fa innal haqq ya'lu wal batil yanxafit néna na dëgg moom ala kulli hal moy fété kaw lu du dëgg moy na ci suuf la muy junj ko moy moy xam-xam rek moy ne ca kaw lu dul xam-xam ci suuf la nek mu ne walan tajida li sunnati llahi tabdila yàlla lol la rëdd ta li yàlla rëdd nak dara mënu ko far Sëñ Tuubaa wane na itam nak xam-xam jóg di jëf dara te jiitaloo xam-xam mu ne mu wane ngëneel li nekk ci xam-xam am xam-xam ba noppi soo ko jëf lépp looy jëf ànd ak xam-xam ca ca la yool ba di ëppee ca la tooyaa ba jay ëppee nee na xam-xam na nga xam ni moo gën moo féete kaw jëf te mooy fondement bi nee na jëf ju tuuti ju ànd ak xam nee na moo gën jëf ju baree bari te ànd ak te ànd ak réer jëf ju tuuti te ànd ak xam te nga xam na nga koy defee moo moo ëpp barke ëpp tuyaaba jëf ju baree bari te ànd ko réer qaliluhu bil ilmi aktharu thawab min al kathiri maa jahlin lartiyaab ndax nee na jëf bu àndut ak xam-xam jëf boo jëfee te àndut ak xam-xam sa jëf joof sa jëf joojee ëllëg day mel pënd buñ jëri rek mu wal ko mu mu mu mu naaw dem du la amal njariñ is kullu aamilin bila almin yura fa sa'yuhu mithlu haba'in nuthira moo tax mu mu mu soññee ci nit ki balaa song jënd jëf na xam ahdaful ilmi Sëñ Tuubaa ñëw na ci boo dee jàng xam-xam lan moo tax nga war a sàkku ci xam-xam lan ban hëdëf nga am nee na ñeent yi na la tax ci sàkku ci xam-xam ñeent yi jàngal ngir ngir fas yéenee jub ngir gindi ko maanaam ngir gindi ko yow ci sa bopp génn ci réer dugg ci xam mu nee na loolu mooy gindiku boobu muy jëkk bi nanga nga fas yéenee gindi ci réer gindiku fas yéenee gindiku nee na loolu mooy njaal benn li nga war a yéene ci sa xam-xam bu ñaara bi mooy nga fas yéene ca jariñ bindeef yi lépp loo xam ne xam nga ko bu ko jaam ñi defee mu amal leen njariñ buñ ko moytoo mu mu mu fegal leen lor nanga leen koy digal di leen ko tere nee loolu na bokk ci yéene ji nga am ba tax ngay sàkku xam-xam nee na ñetteel bi mooy na nga yéene nag dundal xam-xam nag dundal xam-xam am na ñoo xam ne danga xam ne boroomi xam-xam lañu waaye da nga xam ne dundaluñu xam-xam ndax benn jéego buy dundal xam-xam rek doxuñ ca nee na sëñ Tuubaa nee na loolu wërta bokk ci sëñ Tuubaa ñëw na ci surutu taallum charte jàng boo dee jàng ba nga am xam-xam am na ay charte yo xamne lolu bo demé demee ci xasida kun katiman da nga fekk seigne touba indi fa lu yaatoo yaatu xamal fa ki sàkku xam-xam nan la wara mel kun katiman li durri wal busa tan al qasdan wa ta'lu al yaa ya muta'allim neena lépp luy lor lépp luy musiba lépp lu la gën a rek bu dalé ci sa kaw nang ko muñ nang ko neub yow mi sàkku xam-xam ba bokk kenn xam la tukthir ash shakwa fakun mutajallidan hatta tazunna annaasu annaka munham nee na bul jàmbat dara kon geraf yeeg sitting yi sëñ Tuubaa nee na matu ko bu kenn xam lu naqar yi muñal lu la mën a dal ci musiba muñ ko te te sàkku xam-xam da góor-góorlu ba nit ñi sax dañuy defe ne yow jeexaloo dara yow mi sàkku xam-xam nee na nga xam ne kat xam-xam di su ko jox ku ku ku xiif xiif foofu nees na koo déggee itam koo xam ne fu mu toll mingi wut lum def ci posam bëgg alal bëgg alal bëgg jàng bëgg wut alal sëñ Tuubaa neena na munta ne fal ilmu la yuta liman yakhsha tawa bal rabbuna abdan saburan yulhimu neena kum kuy muñ ku mën muñ mën a mënu ñàkk maanaam muñu xiif kooku la sunu borom di di soti xam-xam loolu la imam Shafii don wax waalam bi anna al ilma laysa yanaluhu man hammuhu من ملبس أو مطعم ما مشاف عينينا كو خم نيت موي لوم لك ak لوم سول نانا كوكو مونتا ام خم خم سيغ توبا ني واخ شال اله لدينه متحافظا اذ لا ينال العلم عاص مجرم نانا يومي ساكو خم خم نغا راغال يالا نك تا سامونتيك دينم جي ندخ موي كتب يالا كات دو ام خم خم موي كتب يالا دو ام خم خم امنا سي بوروم خم خم وي جيك يا كو خم ني دا فا نتالي ني dafa am dafa neexoonum xel lool mën a mokkal mu dem benn jamono nag mënatuta a mokkal mënatut mokkal mu jaaxal ko mu dem ci benn sëriñam bu ko jàngal ñu koy wax wakiyan jàmbat ko ko nee na mu teg ma ci yoonu bàyyi mooy yàlla ne ma bàyyil mooy yàlla te kooku nee na la ko yóbbee loolu mooy dafa toppoon ci gannaaw seen soxna soxna sa di dox nee na ba mu yëkkatee tànkam mu gis dojar bi dojar bi rek la gis loolu ñu ñu ñu ñu natt ko ci ba muy fàtte la mu xamoon loolu nag mooy li ñuy wax xasanatul abraar sayyiatul sayyiatul muqarrabin moo tax mu ne wakii shakawtu ila wakiin suu a xifdi fa arshadani ila tarki almaasi wa axbarani anna al ilma nuurun wa nuurullahi laa yuta li asi xamal ma ne xam-xam leer la te leerug yàlla nag du dugg ci mooykatub yàlla nit yàlla yaa am na ñoo xam ne mu ñu masaan ak ci masala mu leen lënt dañuy dem tuubaat tuubaat tuubal seen borom loola leer leen li muy fayndeel mooy leeru yàlla la sëñ Tuubaa euh, gis nga euh, sëñ natt nettali na ko nee na mas na leen di wax nu mu xére woon ci xam-xam ba muy jàng ba naan leen kenn rek moo ma xawoon a dab ci xéer ci xam-xam ba muy jàng ku ñuy wax Balla Maam Touré Balla mooy bàyyi sëñ Mor Mbacke Touré moom ma leen ne moo yoroon daaree xam-xam ca ca gànnaar nee na kooku rek moo ma xawoon a dab ci xër ci xam-xam te fenn laa ko jiite woon mooy dama ko gënoon a sàmm mu ne lam jublu ca loola mooy wana ne xam-xam munta ñàkk ànd ak ànd ak sàmm moo tax mu ne naa il kawaaxiba wal xawaani waatazil in tadnu minha min radan la taslamu sëñ Tuubaa na nanga nga sori na sori jongama yi nanga nga leen sori boo leen dee jege waxuma la am xam-xam waxuma la am xam waaye alkande sax doo ci mucc boo leen dee jege ndax jigéen ñi dañuy wax ne ñooy saarifatul himma jigéen ñi dañuy walbati yitte dañuy suufeel yitte moom la sëñ bay jaxate suufi ba di wax jongama day jaayoo kajaay murit bu jóg mu ne ko kaay tagale ko tagale ko ke laxasaay ak yitte muy niru jigen moo seigne touba Tuubaa nga len sori seigne touba nee na sëñ xam-xam da ko yitte woo woon da yitte lon ba agon na ci ne taallamuha walaw bil lughati al ajamiya jàngaleen seen diine donte ci wonen lak wudul arab la wudul arab kon lu melna qurratul ayni bu seigne Shuaybu ko mënul arab bi itam defe naa indi na ca loo xam ne boo ko jàngee te dégg ko def ci jiite daanaka lu lu bari ci sa diine wala daanaka lépp da ko da ko mën a xam nee na ku ko deful nag ku jàngewul diineem ak nu mu ko mën a jàngee wa man fala yalu man na illa sax ku ko deful ba mu yàdd na ku dul boppam ndax loo ko dal rek na xam ne moo ko teg boppam sëñ saaliwu radiallahu anhu bi muy woote daaraam yooyu ngir ñu indil ko gone yi mu yar leen jàngal leen wax waxaale na ca ne sëñ Tuubaa ci mu jëm ku mës a ñëw ànd ak doomam dana la dénk na la boo demee nang ko yar te jàngal ko te liggéeyal ko kon waaye jur yëpp nañu maase ci xam loolu xam ne loolu ndigalu sëñ Tuubaa lu mu daa lu mu daa digli la kon xam-xam ak yar mënuñoo ñàkk ànd yar mooy def ci yow ragal yàlla imaamu Shaafi'i nee la ñaar yooyu rek ñooy xiimab nit xam-xam ak ragal yàlla mu ne wadaatul fata wallahi bil ilmi wattuqaa ida lam yakuna la atibaara li daatihi nee na qiimam nit daal mooy xam-xam rek ak ragal yàlla kuñ nekkul ci yow daanaka doonut lu am solo loolu moo tax sëñ Tuubaa ne ki ragalul yàlla bu jàngoon ba jeexal fànni xam-xam yépp duñ ko tudde boroom xam-xam inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw ëfna al funuun motax tax mu ne xam-xam sëñ Tuubaa ne na xam-xam moy li lay fagul ragal yàlla mo lay fagul ragal yàlla bo jàng lo meuna jàng ta ragal yàlla nekul ci ko ya ko nekul ci yow yaa ko jaahil yéen a ci misal buñu gisoon koo xam ne dafa bari alal lol waye ñak njariñ lol du jariñ ken dara koku mo ki amul dara ñoyam mo ki amul dara ñoyam motax tax fal ilmu ma aksaba khashyata al alim fa man xala minha fa jaahilun mulim kon xam-xam jàng ko mu def ci yaw ragal yàlla sëñ Tuubaa soññaan ci muy la am solo lool xam naa waxtu yi defe naa sëñ Xasan mi ngi dem kon ñu tëj rek ci kàdduy cant danañ euh, sant ñaari ñaari cant lañ koy def ndax sama sama jataay bi mën naa ko misaal ci li arab di wax xaajaratum bi darbatayn xaajaratum bi darbatay ni moom la wolof di wax wenn sànni jamono ñaar ndax jataay bii dañ cee dañ cee woowoon invité woon académiatu minanil baqil qadim di kuréelu xam-xam nga ca daarul minan dama bokko ci nga xam ne buñ ma deflewul woon waxtaan bi itam dana dana teew ngir loolu incha allah kon ñoo ngi leen di jotti te sëñ Moxtaar Seck mee teew na fi ñoo ngi leen di jot li cantoog kuréel boobu kon waa daayira muqaddamatul xidma ci tuuru kuréel bi académie minal baaxil xadim ak ki ko jiitee na ci bopp bi di Serigne Cheikh Khadim Mbacké moom sëñ Muntaqa ne woon na ma sax dana ñëw waaye xam naa xam naa xëy na daa mujj am gànt waaye waxoon na ni dana dana dana teew si kon ñoo ngi leen di sant di leen sant nag ci suñ mbokk yi muqaddamatul xidma ñoo ngi leen di sant ci tuuru murit yépp nag ci taxawaay bu mat bu am solo bi ñuy taxaw ci jumaa ji nga xam ne murit yëpp lañ ci wutu kenn wéralte wut ne alkamaalu lillahi wahda mat moom moo meelug yàlla la yàlla rek mat waaye ñi ngi def seen kem kattan te jumaa ji saytu gi munta ñàkk ni nga xamee ne taxaw gi taxaw gi muntoon a ñàkk sëñ Tuubaa jumaa ji taxaw da koo yitteeloon ba nangoon na ci sax lu musta nangu mooy sàkk ci tubaab yi dara demoo tubaab yi maanaam jumaa ji ñor ko taxoon na mu nangoo bind sàkku ci tubaab yi autorisation mën a tabax jumaa ji ndax boobu ñoo yilif réew mi kenn sañu te tabax du toll nii te te te mayuñ la ko mu sàkk ko bindloo talab bi sañ Bàkki Busa bind ca suuf wana ne moo bind lu mbind mi mustaktibu haadihi al xuruf yi ñu bare gis nañu mbind mi ñu tàmbali ko ci kanamam mu joxe ca alal ju bari ci kanamam gannaaw bi ay gàllankoor yu bari am ci tubaab yi ba mu gàllankooru ba sëñ Touba wax sëñ Modou mustafaa ne ko jumaa ji sama loxo damm na ci na ci sa loxo damm ngir ñor gum ko ñor wax sañ Fallou ne ko kuy ñëw na la ca fekk kuy dem na la ca bàyyi murit yëpp àndandoo ba jumaa ji taxaw waaye ku ne xam na ne bu taxawoon nii te kenn saytu ko it du sotti kon saytu gi lu mun munta ñàkk la ñoom ñi ci nekk nag wuutu ci wuutu ci ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax defe naa seen taxawaay biñ taxaw bu yàggut ci bokk yooyu ñëwoon benn ajjuma rek ak seen fulla ne dañuy def tawaaf dañuy wër jumaa ji nañuy waree kaaba ga defe naa xalaat yu mel noonu ñoom dañoo ñi koy am dañoo war di jëkk xalaat ne yoon wi dañ cee am ay mag ay magi murit am bàyyi murit am maami murit kibaarul muridin ya jëkkoon a topp Sëñ Tuubaa dañoo waroon laaj seen bopp ndax mas nañ cee gis kenn ku mas a xalaat loolu te xanaa mënuñ leen a gën a xam sañ bi wala ñu gën leen koo gëm wala ñu gën leen a xam xam yoon wi kon moo tax di alquran di wax fas alu ahla dikri in kuntum la moom mbir yi boo xamul fam tagee laaj ko ñi ko xam ñu xamal la ko la ko te loolu buñ ci taxawutoon noonu ñu taxawee ba amut noonu yoon yi mën nañ cee profito mën nañ cee profito am na sax ku jot a profito dégg naa ci koo xam ne dem na ba naan ah sëñ bi moo ne ان بيت الله الحرام ترفعه الملائكه الى طوبى خينا نيوم فوفو لنجو تك غيسنا مبوك مو سي مكو يرد صح مي مبوك جوليت نانكو سنج بي خمغ من نام دا جوبلي سي خمو لوم جوبلي سي طوبى غي خينا اجانا اجانا لا سي جوبلي واي مان داما غيس ني لول صح داي غودل لول ليب جيرغو قصيده غوغو قصيده ديالاله خاتمه المناجات دافني خاتمه المناجات بالخط ديالاله kuy deyaale nag ak ka muy deyaaleel yow mu ci sa yoon nekkut sa yoon nekku ci kon buñ jéem a xam lu ma doon nañ ko bàyyi ak sëñ bi ak boroomam moom ci moom ci deyaaleel waaye sëñ bi nag moom sëñ bi nag moom lépp lu mu ne yàlla defal na ma ko ku àndut ak moom it nang ca tey ndax dafa wéet ak yàlla ay at dafa wéet ak moom xam nga ndaw kundaa bu bu bari le boo xam ne am na lu bari te xëy na ñëpp xam na ne yéwén na fii ne boo woytenoog moom ci néeg suba ba ngoon rek boo génnee nem defal na ma nangam ñëpp dañuy xam ne yanu na maanaam te yàlla nag mooy akramul akramin sunu borom ku yéen moo la gën a yéen kuy baax moo la gën a baax sëñ Tuubaa nag dafa wéet ak moom ay at waxal na ko boppam nee na wéet naag yàlla déeyaaleeg moom ay at moom dong man dong ne te yàlla nag képp ku ñuy askanal ci yéwén moo la gën a baax moo la gëwéri moo la gën a yéwén naajaytuhu sinina wa huwa akramu min kulli ma yunma ilayhi karamu kon mi ngi junju ne lépp lum na yàlla defal na ma ko rek yanu na maanaa te noonu ko yàlla defalee alayhi akbaru ridwanillahi taala noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum wa rahmatulah. taala wa barakaatuhu jërëjëf sëñ ci kàddu yooyu nga xam ne kàddu yu am solo te nga mujjee ko waxtaan wi tomb bi nga doon waxtaane mooy ahamiyatul ilm muy solo si nga xam ne moom la sëriñ Touba jox li nga xamante ne bii mooy xam-xam ku ne xam na ne eh, sëriñ bi jox na yitte lool xam-xam ndax noonu nga ko waxe taalif na ay téere yu bari ngir xam-xam ngir mbokk yi nga xam ne ñoo nekkoon moom te doon jànge ci daaraam di Mamor Anta Sali ñu man cee jànge kon ba muy doon ndaw la tàmbali woon yëngu ci li ñuy wax xam-xam kon sëriñ bi ba muy doon ndaw doon yëngu ci kon sëriñ bi ba muy doon ndaw la doon yëngu ci xam-xam euh, kon yaakaar naa ñëpp war nañoo xam ne ku xam-xam ñor la sëriñ bi doon def waxtaan wi nag euh, dugg na lu yaatoo yaatu ci ngëneelul xam-xam ci alquran ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak sonn gi nga xam ne eh, cheikhul xadim radiallahu taala anhu sonne na ko xam-xam mu joxe ci ay misaal yu baree bari yoo xam ne eh, ñi nga xam ne ñoo doon eh, déglu waxtaan wi xëy na dégg nañ misaal yooyu ba danañ ci jël ay bind yoo xam ne des na ko mën a jariñoo ba tey dikk na lu baree bari ci soññee gi nga xam ne sëriñ bi eh, soññee na ko ci eh, xam-xam soññi na ko taalibe yi ngir ñu fonk xam-xam ndax wax naa ko léegi eh, lii wane ne sëriñ bi fonkoon na xam-xam lool rek sëriñ bi junj na ko ci biir waxtaan wi mooy bi mu jëlee maam Thierno Ibra Faati ak sëriñ daam Abdourahman Lo sampal leen daara ñuy jàngale kenn ki di jàngale daara xam-xam kenn ki di jàngale alquranul karim dafa wut daara joo xamante ne bii daaray laxasaay la eh, jox ko ay mag ngir lañ fay jële muy dundal daara ji nga xamante ne mooy daaray xam-xam yi lañ fay bay ca tool ya muy dundal daaray xam-xam yi ak di dundal ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci daaray alxuraan yi kon loolu rek wane na ne eh, fonkoon na eh, jàng alxuraan fonkoon na jàng xam-xam itam ci loolu la waxee ne. كنز الكتاب والحديث والادب لا جمع فدة ولا جمع ذهب سما ندخن تيف مانام سما تريزور بيغا خامتاني بي تي دنج سما باغاش ييما غن فونك موي القران الكريم اك سنه يونتبي عليه الصلاه والسلام وايي نك دو duma ko xamantene bi damay dajale lu jëm ci walu al fidda ñu diko wax khalis wa zahab ak li ñi wax wurus kon serigne bi yittewoo woon na xam-xam walif leneen xam-xam nag buñ ko waxee la ci jiitu mooy alquranul karim ak sunna si yonente bi alayhi salatu salaam ak dajeeg borom xam-xam yi ci lay waxee ne zahara lii an naatisaaman bil kitaab wa bil xadiisi mus wa bi xadiisi mustafa huwa sawaab kon jàpp gum jàppoon ci sunna ak jàpp gum jàppoon ci alquranul karim ak sunna si yonente bi alayhi salatu salaam wone na ko ba tàyyi lii wone itam ne sëñ bi xam-xam ñoroon na ko ñi nga xam ne ay tuut tànk lañu woon bu ñu leen bu leen ko yotee buñ ko yotee sëñ bi maanaa sëñ bi da leen di jël yóbbu leen ca daara ya waaye mag ñi nga xam ne dañ daan ñëw te xëy na weesu woon jàng sëriñ bi nam daan def mooy di leen tombal ay tomb yoo xam ne danañ ci mën a jariñoo kon loolu itam am jàngale la kon méthode la boo xam ne sëriñ bi bokk na ci ñi ko ñëkk indi eh, ci luñ xam sëriñ bi mën nañ ne moo ko njëkk indi ci luñ xam muy anniqaat az-zahabiya muy tombam yooyu nga xam ne moom la daan tombal mag ñi nga xam ne xëy na jàng weesoon na ci ñoom kon kooku xam nga ne jàng ñoroon na ko koo xam ne euh, wees woon ndaw ñi di leen yóbbu ci daara ji waaye mag ñi sax da leen daan tombal ngir ñu xam seen diine kon kooku jàng ñoroon na ko kon ñun ñi nga xamante ne bii ñoo aju ci moom dañoo war a fonk jàng ni ko sëñ Muntaxa euh, radiyallahu taala anhu di di di waxe ndax war nañoo weesu euh, maanaa rek euh, nekk nit ñoo xamante ne bi dañuy xam tuuti ci xam-xam mm, daal di wuti ab liggéey waaye dañoo war a jàng ba géeju doogu wuti ab liggéey bu ko defee loola doon loo xamante ne bi lu ñuy jariñ la maanaam dem ba nga xam ne ki nga xam ne mooy dugg ci bloc bi nga xam ne ci la ñuy opérer nit ñi ñi feebar mom bu génnee ak bulusam day génn foofa dem jiite ji ca jàkka ja kon loolu li feeg amul rek dañoo war a jàpp ne xam-xam bi nga xamante ne bi mooy dëgg-dëgg xam-xam euh, jàpp nañ ne des na kon sëñ bi soññee na ci bu baax a baax lii wane ne itam sëñ bi ku fonkoon xam-xam la mooy moom ci boppam taalifal nañu ay téere yu baree baree bari yoo xamante ne bi sëñ bi lim na ci yu bari ci taalif yooyu yo xam manes mënees jariñu mo xam ci fiqh la mo xam ci tasawuf la mo xam ci aqida la sëñ bi bind ci lu bare bare ba nopi nak yëmut ci lolu waye bind ci lo xamne day soñé ci xam-xam lu melne kun katiman nim ko waxe legi ak zadu zawi taallumi li rabbihim wa raxatal muallim ak lu melne ne tashir tanwiru surur wa al umur am na ci ñoo xamne sa dañ ko japp ak kiss kun sëñ bi def na lim man ba mën a jariñ ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel ci xam-xam kon ñun jàpp naa ne ñun ñoo ci des ñun ñoo ci des ñun nag ñoo war a góorgóorlu war a euh, topp ci euh, njàngaleem sëriñ bi bu baax a baax ngir mën a jëfe loolu nga xamante ne bi mooy ndono lim fi bàyyi kon sëñ bi bàyyi na fi lu riche riche bàyyi na fi loo xam ne buñ ko toppee euh, lu ne mën na koo jur kon war nañ cee góor góorgóorlu bu baax a baax a baax Euh, kon xam naa dañuy wàcce foofu suñ kàddu ngir xataayu waxtu wi di sant euh, sëriñ bi nga xamante ne bii moo doon def waxtaan wi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci GMT TV euh, ci canal 217 ci TNT ak mbooleem rajo yi nga xamante ne bii ñoo koy jàllale direct ak ñi nga xam ne incha allah dañ koy rediffuser ñuy sant ñëpp di leen gërëm. di len xamal ne tomb bi nga xamne mom lañ waxtaan mom lañ wara a waxtaane suba ak jàmm muy azaka fil islam ahkam wa adab di lotal ci l'islam atti ci aju ak ay tegginam lotal ci l'islam atti ci aju ak ay tegginam ki ñu ko war defal inshallah moy serigne Serigne Cheikhouna Bousso Cumbuleen kon ñu ngi len di jox dig daje suba ak jàmm ci waxtu wi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin